Euh, moo xam pétrole bi gaz bi wala li nekk ci géej gi wala li ci biir suuf si muy ressources minières yi euh, yëkkati nañu waxu renégociation mm-hmm. ñu bëree bëri di alerte euh, peut-être sax premier ministre posé na acte bu xaw a dalal xel yi mm-hmm. mooy dañuy def benn comité boo xam ne day saytu mm-hmm. contrat yi xool lan moo ci njëriñu Sénégal ak bu ñu ko doon tëggaat ban boor lañ koy tëggaat mais puisque dalal nañ la te nga bokk ci mouvance présidentielle bi yan assurance dalal xel nga mën a jox ñi nga xam ne renégociation yooyu bi ñu ko déggee dañu tiit parce que am nañ fi expérience yoo xam ne quand yu xaw a euh, négative la mooy ñu dagg fi contrat ñu topp Sénégal ba mu fay ay milliards yu bëri am na sax bu ngeen ci jot résilier mooy contrat usine dessalement euh, mhm. haute mer boobu 450 milliards la woon mhm. jaax euh, dakkal nañu ko ñu bëri amoon ci njaaxle ne est-ce que du couté Sénégal ay daan mais le ministre à rassuré yow yan assurance doon mën a jox tey alors renégocier contrat souveraineté souveraineté la bokk. ci la bokk parce que euh, maa ngi wax léegi naan souveraineté mooy kenn du imposer. dara voilà loo xam ne du sa njariñ. Mm. te contrat yooyu yu bu ñu nee renégocier renégocier daa fekk ne la ca nekk du suñu njariñ. waaw tey renégocier ko dafa bokk ci dëggalaat suñu bopp. fekk leen ne ngeen contrat yoo xam ne. waaw a y' a y' a de grandes questions de euh, des des des dans certains domaines yoo xam ne. la pêche dans beaucoup d'autres yoo xam ne jàpp nañ ne amaana. Ah, du nam tëdd daal Sénégal des na see gis boppam te nag am réew boo demee ba nga jàpp ne lu ñu xas ba signé donte du sa njariñ ah, moom da ngay croiser les bras rek yow moom jàpp naa ne am amatoo droit exister mm-hmm. moo tax le président je pense que li dalal xel bi ci ëpp doole mooy li président mu def wax ne leeral ko ñëpp ne les contrats seront seront seront négociés et bi ñu koy def nag même les partenaires ah, ñu si bëri ba ñuy signé contrat yi xam nañ ni ni mu tëddee. Euh, jaarul yoon jaarul yoon wala kañ ko seqal mu moomi ressource am ay population moom ko. Mm. des nañ see gis seen bopp. donc te jii faut avoir le courage mais intelligent le courage intelligent de prendre en charge ces questions là moo tax comité yi ñuy teg ay experts ñoo ci nekk. Mm-hmm. te domaine boo ci jël ci domaine yooyu rek Sénégal am na ci kàngam yoo xam ne. lu ne ci wax mën nga kaa bind téere donc ñooñu nag bu ñu toogee liggéey si xol porox ndool yi jàpp naa ni dinañ mën a poser les pas parce que nag duñ nangu tey ji li nga xam ne ressource Sénégal Sénégal moom ko war a jariñoo ay jàmb di suñu jariñoo suñ kaw ñu nar ko def ba mu dem te ñun duñ ci gis bopp donc defe naa ne loolu du responsabilité mm. te Sénégalais yi fal le président Bassirou seen li ñuy xaar ci moom mooy lañ yelloo ñu delloo leen ko moo tax amuñu beneen yoon bu du topp ko voilà. Hmm. alors bala ñuy dellu siwaat ci réew mi ñu jaar États-Unis Donald Trump euh, dégg nañu euh, li xew euh, ci moom tentative d'assassinat bi. Hmm. ñu bëri gis ci ne effectivement mun na ci amee doole. Trump bi bu mu yegsee ci bopp États-Unis dégg nañ li mu waxoon il a un peu bouleversé peut-être mm. coopération bi diggante Amérique ak yeneen réew Sénégal day jëflante ak Amérique mm. euh, dégg nañu Joe Biden itam démb mu retiré sa candidature ba wax ne nañu jàppale euh, Kamala Harris mi nga xam ne mooy vice présidente bi alors retouru euh, Trump ñu bëri ñu ngi koy séentu gannaaw li fa xew ban conséquence la mun a am tey ci Sénégal ci Afrique ak ni réew mi doxee Trump moom il est assez spécial oui oui <laughs> boo xoolee président sam quand amoon euh, sentiroon nañ ko sur la scène internationale. parce que c'était un peu le retour vers voilà dafa ñëw un le multilatéralisme quand même. Mm-hmm. les États-Unis sont toujours positionnés comme leader nangam ak nangam mais Trump bi mu ñëwee quand même sur mm-hmm. certaines questions euh, unilatéraliste donc c'est n'a pas toujours suivi les les les grandes dynamiques d'ensemble mm-hmm. euh, tey ji mën na ñëwaat mën na ñëwaat parce que euh, tentative d'assassinat bi ñu wax noonu c'est un fait qui impacte donc subjectivement ça ça peut créer de de l'affinité de la, la solidarité de la compassion etc et c'est des voilà c'est agissant c'est vrai Biden qui vient de se retirer euh, qui va donner la place peut-être à Kamala Harris ça dépendra des euh, y a une zone de, il y a une incertitude qui est là autour de ça mais je pense quand même que Trump part avec de très bonnes chances maintenant s'il revient au pouvoir aussi il savoir que les États-Unis oui, Trump est le président de la République, mais dans un pays où le pouvoir est extrêmement encadré. Voilà. En plus, au-delà de Trump, je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a des entrées aux États-Unis qui ont besoin de maintenir euh, certains aspects sur la scène internationale. Ouais. Donc ça dépasse la personne de Trump, même si en tant que président, je pense qu'il joue, joue, joue, un rôle important. Ouais. Les États-Unis ont besoin de bon ça c'est plutôt analyse quoi ils ont besoin de se réaffirmer de de de de de garder leur position sur la scène internationale parce qu'aujourd'hui ils sont extrêmement concurrencés mhm. il y a des je parle même de puissance révisionniste comme ni ko ñenn ñuy waxee mais il y a d'autres puissances dans le monde aujourd'hui qui s'affirment euh, qui font de l'entrisme partout les Américains ont besoin aussi de en tant que grande puissance aussi de de s'affirmer euh, donc globalement Donc c'est c'est la scène internationale qui qui qui fait face à, une grosse incertitude. Maintenant pour nous, ce qui est important, c'est pas toujours de nous de nous de d'interroger notre avenir sous l'aune des États-Unis oui. ou de la Chine ou de la de la France. De mm-hmm. C'est d'abord nous, on doit exister par nous-mêmes. Oui. Donc sur la puissance de l'État de l'État. Il faut qu'on ait une autonomie d'appréciation des situations mm-hmm. et qu'on se dégage de la marge de manœuvre pour l'action, quels que soient les Ça commence par se, par se, par se, par renforcer soi-même. Mhm. Donc c'est, notre option, c'est ce qu'on fait. Et voilà, je pense que l'État du Sénégal a des structures qui lui permettent de vraiment réfléchir. Mm -hmm sur la politique étrangère, sur le contexte international, sur les évolutions, sur les opportunités, sur les menaces. Ces différents acteurs, je pense, vont aiguillonner euh, l'autorité, en tout cas mhm. les, sur les orientations. alors ñu ñëw Sénégal wax ci xëyu ndaw ñi. Euh, mhm. emploi employabilité. Mhm. est ndaw ñi mën nañu euh, itam liggéey bu fekkante ni jël nañu leen euh, je pense que employabilité loolu lay wund. su fekkente mhm. ni du noonu itam mën nga jubbanti. yaa jiite ONFP depuis le 15 mai ci la le président Bassirou Diomaye Faye tabb. muy office national de la formation professionnelle ku ko dégg sa xel dafay dem ci tàggat ak wàllu xëy. est-ce que mën nga ñëw ci seeni mission d'abord. yéen waa ONFP lan mooy war a nekk seen ci réew mi. alors ci ci question bi. Euh, ONFP dafa nekk kër goo xam ne depuis 1986 la existé euh, jëm ci wàllu formation professionnelle ay mission nag nekk mission yu yu yaatoo yaatoo yaatu euh, commencé ci njàngat ak lépp luy jàngat xeltu ci wàllu formation professionnelle ak li nga xam ne amaana moom la koom-koom wala entreprise soxla ci liggéey ndax kat tey ji nekkul njariñ ñuy forme nit ñi ci xam-xam wala métier yoo xam ne méngawul ak li e-, li entreprise ci soxla wala tamit méngawut ak fi économie jëm donc foog ñuy saytu loolu di ko xam bu loolu wéyee tamit ñuy xool métier yi wala secteurs yi la fa nekk ci opportunité de métier euh, la fa nekk ci ay ay ay ay ay compétences yu ñu war a am ñu leen di saytu di leen organiser di euh, def ay référentiel ci wàllu métier yi donc di leen identifier di leen classer di def aussi ay ay référentiel de formation ci loolu yoo xam ne amaana après ñi ko seq ñëpp ñooy bokk bokkandoo liggéey ko ONFP di ci jouer bu am solo moo tax ñuy délivrer ay titres yoo xam ne en coopération ak branche professionnelle yi lañ koy def secteurs yi euh, ñu reconnaître ko euh, waaye lépp solo aussi ci mission boobu mooy aussi di former bu ñu defee identifier métiers yi dafa référentiel former Sénégal accompagner former Sénégalais ñu former wu ci ci loolu ndax kat ab liggéey soxna Fatou euh, nit boo ko jox liggéey day fekk mu mën ca dara mm-hmm. Euh, entreprise wala ku man di doon doo jël nit di ko fay xaalis parce que na mi solo dalaa neex euh, ah, wala wala nang parce que dalaa amal njariñ moo tax bu ñu bëggee nit ñi amum liggéey ndaw ñi am liggéey foog ñu tàggat leen euh, formation nag enseignement dafa yaatu ñun boo xoolee fi ñu gën a orienté wu mooy formation vraiment métier compétence niveau intermédiaire au plus voilà ndax jàpp naa ne am koom muy dox tamit c'est de la main d'œuvre ay nit ñuy liggéey ñooy doxal entreprise yi ñooy doxal ñoo ñooñu foog ñu forme leen te boo xoolee Sénégal ni mu bindoo euh, cycle classique bi ñu am baax na am na solo ñu former ay compétences mais par rapport ak besoins économiques euh, yi am na ay déphasage yu am tey jii ñu ñëw si côté pétrole gaz par exemple nga xam ne Sénégal mi ngi ciy dugg euh, ñu ne contenu locale ndax foog Sénégal gi ci boppam mais tey jii li ñu soxla ci métier foofu am na ci bëri yoo xam ne tey jii Sénégal yi parewuñ pour liggéey.